bu Sénégal ca biir AES nag Ousmane Sonko ma ngay neenal yaakaaru poursuite yi donte ni ñu bëri dañ koo soupçonné woon ne dafay jëflanteeg ñoo ñee nga xam ne rek ñoo di junte bi faree ci sous région bi waaye moom premier ministre bu Sénégal léegi leeral na lépp moom Ousmane Sonko ma ngay xam ne ni Sénégal moom dafay des ca biir CEDEAO te dina fexee liggéey ngir lu ko renforcer wax ci beneen renforcement bu war a dox ci diggante Sénégal ak Gambie Le Soleil yëglekaay àddu jëmale ci wàllu kaaraange gi wàllu xeex bi jëm ci wàllu criminalité frontalière wàllu dem beeg dikk bi ci diggante diggante Dakar ak Banjul premier ministre bu Sénégal démb mi ngi doon dalal vice président bu Gambie mu di Mouhamed Diallo waxtaanee nañu fa nag lépp loo xam ne rek moo jëm ci rataxal diggante ñaari dëkk yi waaye fexee def ay jéego ci lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi rawatina camion Sénégal yi nga xam ne rek dañ koy bloqué ca frontière bu Gambie promesse itam daat nañ ko yëkkati ci diggante ñaari dëkk yi 24 heures yëglekaay ne coopération kay diggante Dakar ak Banjul nañu ci ay opportunités yu yees les éco yëglekaay xëyee tey jii ci jooyante yi xam ne rek moom lañ doon am amal jëmale ko ci règlement intérieur bu assemblée nationale yéenekaay bi ne benn ayu bés a ngi nii bi njiital assemblée nationale jébalee ab lettre jomaay fay ngir déglu ci xalaatam waaye ba fii ñuy àddoo nag moom njiiti réew mi dana cell rek enquête yëglekaay ne ko déedéet mbir yi demeewut noonu moom nag lu jëm ci wàllum dissolution bu assemblée nationale jomaay fay dem na seeti ju waa conseil constitutionnel njiital réew mi nag la mu bëgg rek mooy xam ana ban dat moo yell ngir ñu daal di ciy tas assemblée nationale Babacar mi nga xam ngay xam ni daal date bu baax bi fukki fan ak ñett la ci weeru septembre atum 2024 Chérif Théodore Monteil moom itam jàpp ne nag bi la assemblée nationale mënee suñu ko tas ci jamono ji Le Quotidien yëglekaay addu jëmale tey jii ci coow li nga xam ne rek am na ci pôle urbain yéenekaay bi ne Abdoulaye Sylla jamono ji coow topp na ko Cour des comptes moo fësal ay mbuxum yoo xam ne rek am na ci ab liggéey bu ko état Sénégal joxoon te ba fii ñuy àddoo ngeen Sénégal lekk lu toll ci cent quarante milliards yoo xam ne rek ci ab chantier bu ñu waroon a amal la te ba nëgëni si dara réalisé wuñ ko ci nag ginnaaw appel d'offre boo xam ne rek numéro vingt-neuf la bu DG puis jot ak Ecotra daal di caa associé ak ñi di waa Tober ci lañ xamle woon nag ñi dinañ jébbal caabi ñi nag ñeel VRD di ab voirie réseau divers boo xam ne rek dugal nañ ca lu toll ci milliards ñoom ñooñee nag leeral ne fileeg ñetti weer daañu amal ay jooyanti xamle ne li ñu waxoon dara amu ca ñii di waa forum civil nag ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2024 demoon nañu seeti ji ñii di waa OFNAC ak waa PARCOP ngir joytu fa mbuxum gu toll ci 80 milliards ci ay parfum de corruption yoo xam ne rek nemmeeku nañ ko ci boobee marché nga xam ne rek ñu ngi ko jébbaloon Abdoulaye Sylla l'observateur xëyee tey jii nag ci lu jëm ci wàllu fraude fiscale boo xam ne rek ñu ngi koy tudd mu toll ci 12 milliards ci suñu xaalis DG bu Première Bête teg nañu ko loxo fafee ci aéroport yéenekaay bi ne moom Joris Dunkel nag fekk muy waaj a daw ak njabootam ca lañ ko tegee loxo évidence yëglekaay xëyee tey jii ci convocation boo xam ne rek moom la ñu convoqué woon ca kanamu yoon kii di Diégui Diop Fall ngir lu soxal passation de service l'info yëglekaay ne ko démb la doon jàkkaarloo gendarmerie bu Kër Massar moom Diégui Diop faal mi fi nekkoon ex directrice bu promotion ak économie sociale et solidaire moom nag dañ koo convoqué woon ngir li mu lànk ne du amal passation de service waaye bi mu jàkkaarloo ak waa gendarmerie la mu xamle rek bokk na ci jëwriñam moo ko yóbbu moomee nag moom moo respecté wul règlement protocolaire yi nga xam ne rek ci la war a tënku ngir mën a amal loolee di passation de service yéenekaay bi ne ginnaaw waxtaan boobee nga xam ne rek doxoon na ci digganteem ak enquête kat yi nag tey jii moom Diéguy Diop Fall dina amal passation de service ngir jébbal lenge ki ko war a wutu ci direction boobee ngir mu mën a door ab liggéeyam réew mi quotidien daal di koy feelu ne lu soxal passation de service Diéguy jo Fall ma ngay échappé prison les éco yëglekaay wax ci limogeage bi ñu limogé ki nga xam ne rek moo fi nekkoon directeur bu ONAS yéene yéenekaay bi ne ay ñoñam moom Cheikh Dieng nag ña ngay tuumaal ay alliés ak i autorité yoo xam ne rek dañoo bokk ci coalition Diomaye Faye ne lu jiin njaaga ñoom ñooy njaak tribune yëglekaay xëyee tey jii ci ab déclaration boo xam ne rek dafa jëm ci situation socio-économique bu Sénégal te nga xam ne Ousmane Sonko amal na ko di xam ne ne état bu ruine lañ fi fekk Bougane Gueye Dany fi mu toll nii dëgg gi lay laaj Ousmane Sonko ndax moom Bougane Gueye Dany jàpp na ci atum 2023 Sénégal bokkoon na ci dëkk yi nga xam ne rek ko ca biti réew waral nag ci biir point actu moom Bougane Gueye Dany di sàkku ci Ousmane Sonko ay explication ni ñoom naka lañ mën a waxee ni dañoo fekk état bi en ruine te fekk na boobee nag waa FMI ña ngay àddu di jëmale ci ay surfinancement yër leen boobee yëglekaay wax ci màggalu Touba atum 2024 yéenekaay bi ne lu toll ci 130e édition bi daañu ko màggal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août beneenub yëglekaay ne màggal gi nga xam ne rek moom la Cheikhul Khadim woote ngir ñu santale ko suñu borom daanu ko màggal jëm nag sëriñ Muntaxa Mbàkke dana amal ab déclaration boo xam ne rek dana ko jagleel umma islamique bi ak communauté mouride yi loolee nag ñu ngi koy xaar niki tey jii ci ngoon lay doon jeexalee yëglekaay yi ak wàllu tàggat yaram réew mi sport ma ngay àddu jëmale ci jeux olympiques yu 400 mètres yi nga xam ne rek kii di Cheikh Tidiane Diouf jàll na ci demi record yëglekaay des ba tey ci jeux olympiques yu 2024 yi ñuy amalee ca Paris ci wàllu football nag yéenekaay bi ne Maroc ak Égypte ñoom dañoo lajju waaye fi mu toll nii nag Espagne ak France ñooy xëccoo sacré